tey ñu fekk ko tëngeej maa ngi lay bëggee mbër waaw mais maa lay delloo bëggee waat am nga jàmm bu baax a baax xam nga ne naa la mbaa billaay maa la raw fuuf gis naa la gis da danga maa bàyyi léegi daa mel ni de bàyyi ma la yow yaa ma bàyyi yow yaa ma doon woo mais yaa ma bàyyi numéro ba laa ñàkk waaw wax nga dëgg man am naa sa numéro dinaa la woo ana waa Rufisque yëpp waa waa waa Bargny waaw ñëpp a ngi si mooy département de Rufisque bi yëpp ah ñëpp a ngi si jàmm a ngi si ku wen si ci lamb ñëpp di la xaar fu sore sori daaw nga bëre combat tey doo nañ ci waxati ci man ko waxagul waaw waxaguma see yow mais c'est normal comprendre nga koro ku ne xam ne gis na làmba ji xool na ni mu demee mbër mu nekk tey yëpp nañ la conseil la comprendre nga mënoo teggi say conseil yu kilifa parce que dañ la yeb ngay am ay ndam ñu yeb la bii nga niil bu fekkee tey da nga siy dinga day mel ni ne ñàkk gëm yàlla comprendre nga yeb nañ ma niñ ma war a ñëw naa niil sant naa ko yàlla nag léegi boobu ba tey doo démarché wuñ la pour combat waaw booba tey ñu ngi may démarché nag Modou Anta lañ ma doon wax mais après par la suite digaatu ma leen si dara nag. am na loo mën ci Modou Anta yow. waa instant bi moom moom laa gën a bëgg a bëreel. Modou Anta nag waaw parce que tax moom buy bëree yow moom dafa agressif. da lay bëgg a ñëw escale. moom day xeex de. waaw noonu la demee. day xeex de ama neex de ngi ruub. <laughs> kii day ruube quoi. nga ñaan 10 dollars mais dafa bañ la léegi. waaw moom 10 <laughs> dollars de. mais nag nit ku baax la. man lii ma gën a neex si mooy cër bi ma jox. Babacar ku dee asa bàmmeel fii kenn joxul kenn mu lekk mais Bargny la dëkk mais Bargny te nga lépp benn la.

non moom mën naa ko fekki Thiès. moo tax it waay na kaa yónnee tey bëgg naa ko fekki Thiès. waaw waaw sama dëkk la taawee tamit alhamdulilah man bëgg naa ko fekki Thiès. budul moo doon ànd budul moo doon ànd ak keneen ku ma ma bëree yow. dugul ma ko doon wax ma laa de dugul ma doon ba ñu ma bëree moom pour ma fayalu na ko man ba ñu ma fi benn mbër. comprendre nga parce que tey maa ngi fi suba suba ba amoon combat waaw noonu la demee noonu la demee parce que tey promoteur woo ma na doomu daangu ne seexoo leen dara wax na dëgg seexuñu dara li ñu si open presse bi nii yëpp seexuñu dara sa saa bien gàmmu ngoy moo fi doomu daangu bu def open presse ma dem comprendre parce que adversaire dama jàpp man adversaire laa la jàpp man maa bëriwul wax parce que non ma am tënge du doomu daangu moo koy yàq dégg amul luy tax nga bëreeg moom amul dara luy tax ma bëreeg moom parce que tëngeej dama fi am loo dama li ma am bari dama ko fi am tëngeej parce que tëngeej tay bu may bëree ñëpp ay génne teg man mooy préparé combat tëngeej laa koy préparé kër père Moussa Faye ma koy siyaar di ko bëggee comprendre kon tay bu fekkee li ma am tëngeej damay bëree doomu dangu di koy yàq amul njariñ wala may bëree doomu dangu di am ñu may may si tëngeej loolu ja bëre jaralu ma ko waaw bu ma demee bay bëre doomu dangu am ñu may maytu si tëngeej bëre jaralu ma ko teg si salle may entraîné tëngeej la ne comprendre mais guddi guddi bari ñi. guddi guddi bari ñi. Hmm. naa ci yow. waaye fii la ëppee baaxal. jaajëf.